Thorsby. Malakom mo

Wow! ñun ñii ñëpp kenn indi fi boppam pour eh, boppam. Eh, dëgg la man yaa ngi comprendre. dëgg la am ay famille am ay papa am ay. am ay am lu da ngeen di dégluwante wala ñu bàyyi ko. ay magum jëmm lañ jënd ñu suñu kër yi pour ñëw fii reetaan wala pour ay yuuxu ay. xam nga lii moo tax jarul sax jaru ko di di wax waxu dëgg ngeen ngeen di pompé ay affaire di comédie moo tax dëgg bi si comédie rek lay dëgg amal lenn bi affaire bi lenn la booy ñu di rey di reetaan di foo di pompé di kii continuer leen amul problème après ku nekk dina ko yëg politiciens ay politiciens lañ seen bopp lañ fi nekkal ñun Sénégal moo ñu tax a jóg ñun ñi di dee ku nekk mënoon a nekk moom day fekk mu fekk la si mauvais endroit bi au mauvais moment kese lu ñu fi indi xamalal la pour gars yi may ñu suñu jàmm policiers yi may ñu suñu jàmm yaa ngi Sénégal am liberté li ñu fi indi du benn politicien yéen a ngi dégg lu ñuy wax. du yow yaa am fi indi yow man maa la fi indi keneen ak keneen ak ñun ñëpp ñoo bok li ñuy xeex kon mënuñu ñëw ba fii ba pare. di bañ a comprendre lan moo ñu fi indi yaa li ñu taxaw wàcc xam nga lan la booy yi rey man loolu moo ma wàccee politicien wàcceewu ma rek booy yi di génne di xeex pour démocratie Sénégal ñu rey leen jeunesse bi loolu moo tax ñu wàcc jeunesse bi yeewu xam seen droit loolu moo tax ñu wàcc yaa booy bëri ñu ngi def li ñuy def te comprendre ñu ko fexe leen ku comprendre nga fexe sa morom moom mu comprendre loolu moo ñu tax a jóg